jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañ ñu koy topp ci site internet bi di Net Bi TV li gën fas ci bopp xabaar yi nag dañ koy doon rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun génn àdduna ki nga xamante ne rek moom mooy papa yu Lat Diop ginnaaw nag bi ñu ko arrêté moom ci jëmmi boppam rek di Lat Diop kii di waajuram bu góor nag daal dinay ñàkk bakkanam ginnaaw buñ ne nag ab crise la defoon naam sax doon na jëm a xëccante ak moom waaye nag mujj na ñàkk bakkanam ni ki tey jii ci dimanche bu nekk naqar ak tis boo xamante ne rek daal nay ñëwaat nag ci kii di Lat Diop ginnaaw bu ñu ko arrêté ni ki samedi yemoo ak ñaar fukki benn ci weeru septembre ci atum 2024 ba defeere ko nag ci kanamu pôle septembre bee ñu génn kii di Lat Diop nag daal dinay amaat nouvelle bu naqari nag boo xamante rek daal dinay ci kawam moom mi fi nekkoon ancien directeur bu LONASE nekkoon fi ancien des ministres des sports dafa ñàkk rek waajuram bu góor mu nekk nag mbir moo xamante rek daal am ni tey gi mook juróom-benn fan ci weeru octobre eh, ci atum 2024 ginnaaw bu di jotee nag ci ab clinique naam sax moom ci jëmmi boppam rek doona na a xeex nag ba daal di jukk waaye nag mujjul sot bu ñu sukkandikoo rek ba tey ci source bi joxe boobulee eh, xibaar te suñu nattangooy Dakar Actu daal di koy fësal kii di Codé Diop moom ci jëmmi boppam rek ne nañ daal eh, dafa daal di piqué crise ginnaaw bu ñu arrêté doomam bi di laat Diop mu def ñeenti fan képp waaye nag mujjul rek daal di mucc mu mel ni rek naqar nga xamante rek daal dina koy am nag ci arrestation kii di Lat Diop moo wala rek mu daal di am ab crise ñi nga xamante rek ñoom ñooy ay njabootam dañoo daal waxoon rek jorul woon ñu ko koy wax waaye nag ginnaaw buñ ko ko waxee nag ci la daal boobu de crise ba daal di wuy ji boromam nit jii di ko ñaanal yàlla yërëm ko te ko àjjana jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen a abonné bés cloche de notification ngir mun a am i xibaar